Abou nuyu naa maa lay fay maa lay fay gaynde. lan moo waroon seen teewaay fii ci Thiaroye gi ci open press qualifier. combat bi boobu léegi ñu si ñu ngi si bu baax dañ si gën a nekk nag waa dañ si gën a nekk. naka nga gisee qualifier. non quali. yéen bàyyil ba dimanche ba mu simeeku. ngeen xam ne moo gën a pare fop. mais Ada Fass dajal de. du dara moom yaakaar naa ne mosul am combat bu mel nii. xale bu ës ba pare du xalaat nag. xanaa déggoo der ki daa bu ñuul bi. xanaa déggoo derkindaa bu ñuul bi benn sax wër na Serigne Touba si kàttanu yàlla. diggante Ada mën nañ cee xalaat xeex bu sax bu dëgg. xeex bëre xeex bëre dina xeex dina bëre loolu moom bu yoboo mu waaj ko. mais li ma mooy Ada Fass nee na combat bi mu dalee bëri ba léegi combat bi moo na gën a yomb ci combat yi mu dalee bëri. li mu foog la rek dafa foog ni Coly yaramu gerees la yor wala entraîné wul bu leen tëjee si biir géew gi dina xam Coly liggéey na wala liggéeyul. duñu benn sax moo Coly wax jëy rek mais diis du rey aas. yaakaar dina weer Ada si kàttanu yàlla dina ko bëreloo jàpp ko du ma ko daan ko. état de forme comme que yéen ànd di entraîné fu nan nga ko gisee. man gëm naa ne Coly gën a pare. fuuf. mais bi ma gis si bari na. non ñun non ñun mystique ñu. mystique gu ñu ñun ñun gaan làmb teguñu ko si mystique bi. si entraînement lañ ko teg ak gëm ak ëmb suñu mbër nag. pare. pare nañ de. looy wax Ada na ñëw daanu rek garaawul champion la mais na ñëw tëdd rek garaawul amul problème parce que mënul daan Coly que looloo fa am amul fa leneen ah déggoo Coly lu ma bu ñu leen tëjee si biir da koy linjaa. waaw te da koy linjaa rek jël ko yëkkati ko encouragé ko mu dem defaruwaat. kontaan naa ci yow. bëggee bëggee di bëggee ñëpp. Arafas Arafas ne ko Arafas ne ko booy bi dugg na Fass ñaata yoon du benn yoon bii dafa am mbër ne ko mu jël avance mais Arafas ne ko booy bi dugg na Fass ñaata yoon ñaata yoon la booy bi dugg Fass di ko rajaxe dama leen bëgg a xamal ne leen kooku di wax yow. coono ji bàyyi loolu wax baaxul sax naa ko tàggu kii. waaw mooy ñu desul avance Arafas ñu mbokk yi qualifier a noonu ànd ak takkindaay tey ambiance eh qualifier qualifier noonu am lu muy suy am na benn sango gom rango waa du bopp jaan laay làmb daal lépp lépp aar la. daanaka duñ sonn ndax Serigne Moussa Gueye mi nga xam ne tey moom la yàlla doon ñu fekk ci gis moom la ko lifay ràngoo ëw ko longu ci baat ba am na luñ koy sotti mu koy raxasoo sëlmu ca Coly Faye raxasoo maa ngi gis Coly Faye numéro gis naa Xaadim Njaay ñoom Abu Njaase Abu Seck Caatu Fora Baye Mandione numéro deux Brise de Mer numéro deux Boy Sadio takkindaay daal yëpp a ngi fi tey jaaykatu jaaykatu jaaykatu ndox yi sax ñoo ngi fi tey Coly Faye ngoog waaw man jug bi daal day sedd sama xol may ko mu ñëw teg waaw. Coly Faye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 mi ngi ci forme Ouzin Coly ni mu dugg tey ci open press bii bu dee noonu la dugg ci làmb ji bu dimanche gëddëm ak Ada Fass xam ni kon mën naa am dara ndax Coly tey confiance bu mat sëkk lay indi xoolal ñu ko dar xoolal ñu ko dar tey ay magi làmb rek ko dar gis nga Xaarim Njaay xoolal xale yi waa jàmm gën ñëpp a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 danoo toog ci ñaar ba ñetti defet yoo xamante ni bokkoon na ci li li li leen di laxase boo xoolee Abou Ndiassé dafa ñëw Pam Doy daan ko. Siteu ñëw na. Siteu ñëw na. Siteu moom jàmm gën Siteu ko ñor képp kuy mbëru Lansar ak jàmm gën saa boo amee bis day ñëw dooleel la Ousseyn lamb.